صل على محمد لا اله الا الله سيدنا محمد طيب بيت لا اله اللهم صل على سيدنا محمد شكرا كثيرا لا يري مسليا على الكريم هذا الورى للمرهم يومك اذكر سارس المجيد شكرا يلالي المجيد مسليا على الويل بك الكلي وكلمه امري نكسك borom canaba ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko wér yàlla kattanal ko te yàlla dooleel ko yaakaar naa ni bi mu yëgee ni Seex Alasaan Seen sopp Seydina Muhammad mu ngi ci ëttam bii yaakaar naa ni xolam sedd na jàmbar ji nga xam ni itam yëpp mooy def lu baax itam yëpp mooy dimbali jàmm ni itam yëpp mooy li mu boppam la bëggal ñëpp moo tax jikkoom ju rafet ji ak mbaaxam gii yàlla def ci moom sëriñ bi li ñuy sàkku te di ko sàkkuwaat xam na ni tey yaay maam amari nag li ñu bëgg nag ci moom mooy na gudd fan waa mu gudd fan waaw li li ñu bëgg ci moom mooy li mu bëgg te yéene ko te mu ne ci xolam li ñuy ñaan mooy bu ñu fi jógee ci sa ci sa mbaax mu am ko alhamdulilah waaw ndax moom gëm naa ni bu ko yàlla dimbalee ci ay bëgg-bëggam yëpp alhamdulilah loolu rek laa bëggoon a dégg ci sa kaddu loolu rek laa soxla woon kon ñu ñëpp ñu déglu si xala san mu yëkkati sant yàlla bu baax nee na des itam di ko sant di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am mbégte mu kawe njort ci jàkkaarloog sunu wuy jur wu tedd nga xamante ni cofeel gu lañu ko ëmbal mu tax dañuy sawar lool nee ci ñëw nag ci moom nee na ñu ngi lay ziyaara nee na mbokki cenn bi yëpp nee na mu ngi ziyaara itam porte parole imam di nuyu di sant itam nee na ci nii munu dalale nee na ziyaara ak a ndokkeel nee na sunu bunt itam ci kër muy sëriñ ma dikke moom day nee na saa sunu waxee rek waxam yëpp mu ngi koy delloo nee na ci Baye Xasan léppam nee na cane bala ma dikkee nee mu ngi lay ziyaara bu nee sëriñ bi tànk yi tànku yeesal cofeel la yeesal kóllëre la ak tànku nag fësal mbégte bii ñu am ci weeru tedd wii muy weer wi màggal juddug nee na ki gën ñëpp muy sallallahu alayhi wa ne dafa am boroom xam-xam nee na bu laaj benn laaj bu am solo ne dafa dugg ci diine ji waaye boroom xam-xam bu mag la ci physique ak simik nee na mu laaj yenent bi ak jibril kan moo gën a gaaw gaaw ne gaaw ci ci vitesse nee benn waay bu fa toogoon mel ni xel mi neexul ni muy mooy tontu ne dal ni bëreet ni sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ko gën a gaaw ne ñu laaj ko lan moo tax mu ne jibril mii ma gis soo amee santaane dafay daw wuti santaane wax ci gaawaay boo xamante ni ne moo gën a gaaw melax waaye sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam mii ma gis ne bu fekkee ni dëgmal na dara jëm ca loola mooy jóg déplacé wu nag fekk ji rasulillah mooy différence am ak Jibril Jibril ne dafay def jeego jëm ca la mu bëgg la mu soxla waaye Seydina Muhammad la mu bëgg moom loolaay jóg nag ah def jéego nag ñëw nag ci rasulillah moo tax ñu am mbégte mu rëy sëriñ bi ñëw jàkkaarloog yow ne di la sant place bii nee fii ngay dalal ñi néew doole nee fii ngay dalale borom borom barke fii ngay dalale nitu nguur fii ngay dalale ko amul benn ndombal tànk ci réew maanaam waaye yow sa dalal gan aajowul ci ndombam yow sa dalal gan mi ngi aju ci yalla li mu wax wala xadd karam naa bani aadama foofee ne fa nga taxawee ci nit ñëpp moo tax ñëpp bay bàyyi la xel ci sa taxawaay waaye ci sa miin kurus ne ne ñëpp miin gi nga miin kurus ci lalu la dàqantale nee dafa bari ñu muy waxtaanal ci wàllu kurus benn kilifa xawma lan de waaye Baye la muy jëfandikoo loola bënn na ne jëfandinoo ko ba la mu jëfandikoo bënn kuy wut kuy wut nag dara ci yàlla te fa nga jaar bënnagul mënoo am nag dara nag ca yàlla moo tax sëriñ Asan ñaan gii ñu lay ñaanal mooy ñaan la nga dolli ñaanal réew mi mu am jàmm nga dolli nag ñaanal réew mi li fi mag ñi ñaanoon ta mu mel ni nag jot na léegi yàlla na yegg seeg jàmm muy naataange nag gu mat sëkk ne fi muy daaneele kaddu yi ne ñaar la bi ci jiitu ne segam yàlla ci boppam moo wax nee na ci suuratul baqara yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum segam yàlla wax ne jaamam saa ko wooyee mu bi mu moo wax ne jaamam saa su ko woowee dana ko wuyu ci jamono bi mu ko woo ñaan yàlla nee mu ngi ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay nee naal yi nga am ci kër gi nee mu gis ko bër ci démb yàlla na yàlla def nag nga yeggale ko bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam beneen bi nag ne dafay wax la kilifa gu mag waxoon ne dëkk ba yëpp danoo daje nee na bëgg koo sargal nee na borom alal yi ñëpp bàyyi seeni kër ñu toog. ni tey jii diw mii ñuy sargal lépp lu mu laaj rek ci teraanga mu bëgg ko ne danañu ko defal tey jii ne bi ko ñëpp sante nag ba noppi ne ni ko waa micro bango waxal yow yi nga bëgg ñu faj ko léegi mu wax ni mbooloo mi lenn képp laay ñaan muy juboo mooy jubboog sunu borom ne beneen bi may ñaan mooy yàlla ci boppam yokk sama mahabba nag ci Seydina Muhammad mu ne loolu képp laa bëgg nag ci moom waaye sëriñ bi soo ñuy ñaanal ñaanal nu yàlla itam yokk sunu cofeel ci gën gi mi ndéef sallallahu wa sallam foofu lay yamale wax ji mu ngi nuyu njaboot gi yëpp di ne ci weer wu tedd wii bi ñu jëm suba alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Cheikh Alassane bàyyi seexu canaba mu ngi wax ñëpp asalaamaaleykum ne maa ngi nuyu bokk yëpp ne maa ngi dalal sama gan sama doom waaye gan gi fii du fi gan taraangaam du fi gan kër gépp miin la ñëw nga fi andi fi taraanga dellu si waat andi teraanga dellu siwaat andi ne teraanga ji bari lool jërëjëf seen yàlla na yàlla fay la waaye canaba day dëkk bu day dëkk bu yàgg day dëkku diine canaba génération bu njëkk ba. ca génération bu njëkk ba. ñi fi njëkk indi diine. ñi fi njëkk indi diine. ci bokk. cana ba. téeméeri ak nangam. téeméeri at am na ko. bay bu naa na kunta. bay bu busa. bay mu laay Baye Tafsir Demba Bunna. Baye Tafsir Demba Bunna. ak Amary Ndak. ak ñoo bokk génération. ñoo bokk génération. Baye Tafsir Demba Bunna. Baye Tafsir Demba Bunna. moo jur Ousmane. moo jur Ousmane. mi meññ Seydil Hadji Malick. Baye Mbacke Maram. Baye Mbacke Maram. moo jur. moo Anta Sali. mi meññ Xaadim Rasul. mi meññ Xaadim Rasul. génération boobu. ne génération boobu. ñoo jëkk. ñoo jëkk. installé ci réew mi wu ci réew mi. ñooy ñooy ñooy yi nga xam. ñooy wàllu yi nga xam ni. ñoo jëkk a samp. ñoo jëkk a samp. ak seexu canaba ne sama baay Momar Talla Seck. mooy taawu taawu Amari. mooy taawu maam Amari moo jëkk. moo jëkk. samp jumaay andiir samp jumaay andiir boobu dëkku ni fàndak moo jëkk samp ci réew mi jumaay andiir jumaay andiir booba ñaari jumaa moo am booba Umar Diallo ca ak pirum ndëri te booba yooya nee na ban la jumaa ji mu njëkk samp fii samp fii weñ ya lañ ko taxawalee. lañ ko taxawalee. France lañ ko commandé France lañ ko commandé. wàcce ko kees. wàcce ko kees. oto amul oto amul. taalibe yenu ji ko. taalibe di ko yenu di andi fii si jumaa ji. wax naa président de la wax naa barki dem fii rek président de la république. ne ko ma ni ko. mag googu. mag googu. damaa bëgg toujours. damaa bëgg toujours. mu feeñ ci gëdd. nay feeñ ci gëdd gi ngay jox caraba. soo sukkandikoon ci archive national. nee mu ko soo sukkandikoon ci archive national. sa wi bi nga njëkk a jox. voyage bi nga njëkk a def. canaba ngay jël canaba lay doon. nee si Alassane yow daal li ma bëgg a mooy doo fi gan. yaa a def. nun gan gu dikk. gan gu dikk. lan lay terale. lan lay terale. di la ko gàttandoo. di la ko gàttandoo. mooy tudd yàlla. mooy tuddal ak tagg yonent. ak taggal la yàlla Muhammad. waaye ni fii. waaye dugg si bi nga dugg si fii tey. responsable bu ñëw fii. responsable bu ñëw fii. ñu ko yonent bi. am ñu la topp si ginnaaw di tagg yonent bi. mu delloonu ko. mu delloonu ko. yaa ko jëkk a def. yaa ko jëkk yaa jëkk a def lool de. nu tàggal la yonent bi alayhi salaatu nu tàggal la yonent bi nga delloo waat nee na delloo nu tagg wi. maa ngi koy giñ ci salaatul fatiha. yaa ko jëkk jëkk def ci saalu Seexu Canaba bii. ne bi mu yëkkatee sama baay Ablaye Ñang ne dama ko yëg ci ba ci sama yooyu tànk ne Cheikh Alassane man daal damaa defee ni lii mag na ko digal nee feem bi nga def tey lii réew mi xamu ko de gars yi dañu ñëw ni tekk rek waaye yow daal am na lu la yàlla may xaw ma nag foo jëm ak sa borom waaye am na lu la yàlla may yow ku la xool bëgg la ne li mu wax mooy dëgg si Alassane yow ku la xool rek sopp la ne ku la xool sopp la yàlla na nga arrivé li nga bëgg ci sa xol li nga bëgg ci sa xol la nga wax la nga waxul ne loo wax ak loo waxul yàlla bu la yàlla xañ yàlla bu yàlla xañ sa tànk sa tànk yàlla na pakk mooy pakk yi ne yàlla mooy pakk yi man de xaw ma ñaata yoon nga ñëw fii ne xam naa daal lee mu àgg ci ab lim ndax magam sax si Abdourahim Seck recevoir na la fii ne sa kër gi miin na ko man waxuma maam Amari Ndaak de waxuma maam Momar Talla ut naa juróom-ñett xalifa waaye juróom-ñett xalifa yëpp juróom-ñett xalifa yooyu tooge nañu maqaamum kër gi kër gi waxuma juróom-ñetti xalifa yi de ñetti xalifa yi de waaye billaahi man sëñ Assane kenn du perte ci man wallaay doo ko dégg def naa ci bàyyi as perte ñaqal naa bàyyi asperte jox naa bàyyi asperte taalal naa samay loxo bàyyi asperte nee doon doom mukk nee na loolu ma wax séqu koog yàlla am naa juróom-ñetti fukki at yu mat sëkk mbaa manqué tuuti xaw ma ci àddina dara lu dul sikkar tur yàlla la ma neex ak lu ma naqadi lu mu mën a doon maa ngi koy faje rukkoo mbaama sikkar ko képp am na loo xam ne am na loo xam ne liggéeyam ndey la koy may am na loo xam ne ngërëmal bàyyi la koy may am na loo xam ne kenn du ko def te du nitu yàlla mooy dogu mooy dogu def ko kontaan nañ de kontaan nañ kontaan nañ Cheikh Alassane nee waaye yow bul digg ci man <laughs> ne war ngaa yoon woo xam ne waaw du ànd ak kenn maayo ñu tëju si néeg nag ne nu wax lépp def lépp damaa bëgg a fay bor bi <laughs> kontaan nañ kontaan nañ waaw kontaan nañ kontaan nañ <laughs> ñaan ko ñaan ko ci Ah. Ah. waaw mu ne da koo joxe addiya. Ah. man damaa a damaa xam ndax ma jaawale doxuma woon. ah kay kursu xaalisu gal. ah kay ah kay. ñaari kurus. li ci bu Aram genn nga genn xaalisu gal. xaalisu gal waaw ah kay. li magam bi ñu dafa la ko ko maye. waaw duma kurus gi daal nee na moo ko teel boppam. ñaan ñaanal ko waaw. yóbbu nga sunu ngërëm. waaw ñaan. yal amiin amiin and and and